mbokk teew ci jataay bi yépp ginnaaw bi ñu jiitalee sëriñ bi siyaara ko ñaanal ko yàlla sunu boroom mu gën a yàgg sunu kanam te ànd ak wér ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ministre Dame Diop moo leen jiite te ñu teewal fi ki yàlla teg ci boppu réew mi kaddu yi lu gàtt lay doon kaddu gi sëriñ bee ko moom dama ko daan jottal ay kaddu waaye dama bëgg tey nag yuuxul ma yuuxu yuuxu yuuxul sa bopp taarix dafa am solo dañoo bëgg sëriñ bi màggalam ku njëkk gii nga xam ne moo gën a yaatoo nii ne defoon nañ ko daaw mu mel ne nit ñi dañoo jàpp ne yetti màggal la ñuy boole yaari at yi benn atub sëriñ Abbas radiyallahu taala anhu ak bosam bii daaw ak bii loo boo ko xoolee day mel ne ñetti màggal lañ lañ bëgg a boole moo tax mbooloo mi àppwul xanaa ñam rek lañ leen mën a jox ci lu doy waaye leneen luñ leen mën a jox ci lu doy xawma ko waaye nag ñaan yàlla sunu borom ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm rek moo mat a ñaan kaddu yu gàtt yi mooy li nga xam ne moom nga nu santoon nu ànd kook sa njabootu biir kër gi ak njabootu borom daaru gi yaatal ko dugg ci biir yoon wi yëpp ak wet gu mën a féete la nga santaane woon lépp def nañ kenn ku ne def na sa kéemtalaayu kattan ba nga xam ne la jàpp ne ba am nañ ko ci day lu kawe njort la ci rafetaayu liggéey ba ak taxawaay ba loola itam moo am ci mbooleem ñi nga xam ne eh, ñoom la ñu seqal réew mi te président de la république nekk ca bopp ba lettre ya nga joxe woon ndaje yi ñu defoon ci sous préfet ak sous préfet ak préfecture ak euh, euh, gouverneur nga xam ne mooy CLD bi CDD ak CRD bi ñoom it la ca man lépp def nañ ko taxawee nañ ca taxawaay boo xam ne nit ki nag li nga bëgg lépp yàllaa ko man te defu ko kon ki nga ki nga seqal muy doomu aadama ne yow la mu ca man mu def ko jàppal ca loola loola yàgg nañ ko euh, yàgg nañ ko dund ci sa wet yàgg ko dund ci wetu sa kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu woon ñu ñaan yàlla sunu borom lépp lu ñu fi yaakaar rek sunu borom defe ko noonee ca nañ ko bëggee lu ca gën lu ca gënu tit mu soppil na ko ba mu gën mu defal na ko li ñu fi jàngale tuuti royee ko ci uh, njàngale borom Daaru ti mi ko Sëriñ Tuuba uh, digaloon moo dina jataay bi loolu ñu la waxtaane woon ak yow démb te nga nangul na ko ñu bëgg mu doon lu gàtt lool yaa ngi bi ngeen yor wax ji loola moo tax ñu defe ko nii am na loo xam ne dañ koy waajaloon ci Modou Kara Samb ngir wane liggéey bi nga xam ne sumb nga ko ak jataay bi nga xam ne moom la fi dajale ndax màggal gi waaye loolu lépp dañ caa def nag meneen mbir moo xam ne dañoo bëgg mu dellu ci njàngalem borom daaru mooy nu jiital ko laata ka ngay agsi wala ministère bi di agsi te loolu moo nu may nag nu mën a am jataay bu gàtt boobu kon sëriñ bi noo ngi sakku nga ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi des kenn desu ci nag tàmbalee ci sa njabootu bopp gi ci biir kër gi ak biir dëkk bi mu xam ne mooy njabootu borom daaru mooti gi mboolem ñi nga xam ne itam war nañu cee taxaw feeñal ci seen yéene tey doomi doomi daaru ti def nañu ko di eh, taalibe sëriñ Tuubaa def nañu ko taalibe borom daaru mawti def nañu ko waaye nag Euh, Mouhamad Nasir Samb mi nga xam ne moom nga jox liggéeyaatu jumaay Daaru Moxti ji na nga xam ne lii bokkul ci liggéey jumaa ja waaye moo ko def mooy fii nu toog ak mbooleem yi nga xam ne mooy warukaay yi mooy matukaay yi mu àndal lépp moo ko def te yëg nañu ne gën na noo jàppale itam ci li nga xam ne mooy wàccaayu uh, màggal gi te mooy lu jëm ci communication bi ak ci organisation lam ca man def na ko ni ko ñeneen defee waaye nag kon ñu sant la ñu sant ko gërëm ko ci ci ci nga xam ne ku def nag dama ko daan faral di wax ne fii kenn du fi nëbbu jëfi kenn lu fi waay def rek dinañ la ko dinañ ko seeral ki ñu ko war a seeral ñëpp daal jëf nañu waaye jëf ji nga xam ne nag dafa fes kenn ku ne yaa ngi koy gis teg sa bët loolu moom ko ko def mooy Nazirou Samb nga ñaanal ko ñaanal mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo bokk ci liggéey bi ak ñi nga xam ne seen yéene ak seen pas-pas mi ngi ci loolu daal sëriñ bi noonu loolu lañ ci amoon leen di wax ngir sakkul mboolem ñun àndaloon liggéey bi ay ñaan sakkul mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootug borom daru sakkul ñi nga xam ne ñooy njabootug sëriñ Touba sakkul ñu nga xam ne ñooy njabootug l'islam yàlla def jàmm ci réew mi te def ko ci àdduna bi yëpp. la ca des moom mooy loolu moo di euh, bi nga xamee ne ministre bi nuyoo na ci turu président de la république kon sëriñ baa ngi koy delloo am nuyoo ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee di ko sàkku mu jotal ko ci ñim àndal ñëpp moo xam ñu dëkk ci dëkk bi la mel ne Modou Diagne Fada mi wala mel ne Jili mi nga wax wala mu ne Cheikh Abdou waaye mbooleem ñi nga xam ne rek ànd nañ ci délégation bi ñooñ sëriñ bi delloo leen waaye nag delloo ko ci ki nga xam ne moo di président de la république mi nga xam ne su ko neexul woon du ngeen toog kon nag neex na ko kon moom itam cant gi day àgg ci moom te gis nañu ne incha allah buñ ko dee yaatalaat dinañ ko yaatal bañ xam ne service bu nekk lam ca def am na ci ñoo xam ne nag defuñu dara waaye nag ña def lépp danañ ko leeral incha allah yaatal gi nag mooy sëriñ bi lañ bëgg a noppal ci bi moo tax duñ dugg ci yenn yi waaye ku def danañ ko wax ku defut danañ ko wax ndax fii loolu mooy li nga ne mooy li fi xaw ngi lay sant bu baax di la gërëm ci li nga xam ne moom nga def yow ministre Dame Diop te nga xam ne da nga cee am cër nag ndax nañu xam ne Euh, satu Mbàkke mbakke nga nga ne da cee bokk bu ñu dee topp ci kër bu ñu toppee ci maamaaram yaa nga ci biir bu ñu toppee ci maamoor maamoor Anta Sali yaa nga ci biir kon loolu kon da xam ne dafa mel ne li arab yi di léeb ñu ne ki tabaxoon kër gi day mayaat nga ko kër gi mu dugg ca biir kon noo ngi ñaan yàlla sunu borom sëriñ bi yàlla yàggale sunu karam wéral cër yi te lépp loo xam ne dégle nga ko fi wala nga santaane ko fi yàlla may nu nu jëfe ko ànd koo yow nekk sa ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu